السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكو الحق ثابت سين بوكو طالب مود كما تشاو مولين دي نيو دي لين زيار دي نيو اكيين رك اي ليرال ولا اي تخاو سيدلو تي تيري بي نيو تقديس الاشخاص في الفكر الصوفي ab bindkat mbokk mu ñuy wax docteur Ahmed Lo moo ko bind euh, doon ci melal nag tasawuf wala boog doon ŋàññe tasawuf su insaxa taabir euh, muy téere nag boo xam ne bu doy waar la waaye euh, doy waar gi yëpp it ngir ñi mën a liir tey settantal téere la boo xam tamit dafa sukkandiku ci ay téere yuy ŋàññi tasawuf waaye du xalaatu borom téere bi daal dafay sukkandiku ci ay boroomi xam-xam ay wax ne ay boroomi xam-xam lañu ñooña di ŋàññi tasawuf seen ŋàññi googa mu jël ko dajale ŋàññi yu bari yooya daat koy indi ci biir téere bi li nekk ci téere bi lépp nag daanaka li ci ëpp ay njaaxum la li ci ëpp ay njuumte la li ci ëpp ay wuruj la maanaam jaxase ay wax yu bokkut euh, su fekkee ne am na lu ci nekk lu weer daal xam naa ne bariwul bariwul euh, dinañ ci def ay tuuti taxaw seetlu yoo xam ne du ñàkk téere bi moom téere bu yàgg la waaye eh, li tax ñu ciy taxaw seetlu rek mooy wax ju bari ji ciy nekk ndax li ma gis moo di ne eh, lépp lu fi xale am fit ba taxaw ŋàññi ko ab kilifa jàpp naa ne su fekkee ne ku askanoo foofu la ca moom ca borom téere boobu eh, damay wax ne téere boobu la liir kon ba tax mu am fitu ŋàññi ndax téere ba euh, lañ cay xamle ak nañ cay xamle waa tasawuf loola dafay xiirtal nit ngir mu gëm ne tasawuf baaxul seeni nit tamit baaxuñu waaw euh, awuñu ciw yoon xamuñu sax fu yoon wa nekk yasiruna ala gayri hudan comme ni mu koy waxee euh, ma jàpp ne lépp loo xam ne dérapage am na wala ay nit songu na ko ay nit eh, bokk na la leen ci xiir su fekkee ne ñu xam téere bi lañ xam borom téere bi naw ko lool bokk na la leen ci xiir téere boobu te lu ma xam laay wax eh, te dinañ ci def ay tuuti taxaw seetlu du ñu indi téere ba yépp ne du fi xaj donte liñ ci bëggoon a wax yépp xaju ci waaye ñu def ci suñu kemtalaay kàttan rek ci taxawaay bi e, benn wala ñaar ci ay place yoo xam ne e, boroom téere bi def na fa ay amalgam yoo xam ne daanaka e, jekkul woon ci boroom xam-xam mu def lu mel noonu. xam naa li ñu fas yéene def nag moo di ne dañuy indi page bi bu wax. souligner eh, wax ji nga xam ne moom la ñuy leeral ci biir page boobu ànd ak photo eh, ñu jël page boobu eh, daat koy wàccee suñu ko wàccee wee daa nekk mbokk yépp boole ko booloo ko liir ci kaw loolu ñu liir li mu wax fi mu ko askanele la fa nekk page ba muy wax masalan ndax li ñu intéressé ci téere bi lu ci ëpp mooy yu mu wax ci yoo xam ne ci jawahirul maani la ko delloo léegi ñun dañuy tiim jawahirul maani nii daati wàccee li mu wax moom wàccee itam la nekk ci jawahirul maani liir ko liir li mu wax liir jawahirul maani ñu xool ba xam eh, li mu wax ci jawahirul maani loolu moo fa nekk wala Eh, waxal na boroom jawaahir ak borom tariqa bi loo xam ne loola amul eh, loolu lañu fas yéene defee sunu taxawaay bi incha allahu taala eh, boo demee ci téere bi taqdisu asxaas ci jukki bu njëkk bi dafa am lu gën a yaatu ci mabxas yi mi ngi ko jagleel waxdatul wujud waxdatul wujud nag moo di ne Eh, ci nim ko firee moom wala ni ko ibnu taymiya firee eh, njaboot gépp ànd ci moo di ne lépp loo gis yàlla la maanaam eh, yàlla mooy ki mu bind ki mu bind mooy yàlla amul lu dox ci seen diggante su ko defee jaa du caagee ne nit ki rek moom mooy yàlla ak yàlla déedéet maanaam lépp loo xam ne maxluuq la mooy aynul xaaliq lépp loo xam ne xaaliq la moom aynul maxluq te gëm-gëm boobu nga xam ne moom la wax ne tasawuf yi moom lañu ñu gëm particulièrement maanaam tarixa tijaan moom lañu gëm ndax daf ne aksaru machaayixi suuf yi machaayixi tijaan yi loolu la ñu gëm su fekkee ne loolu lañu gëm ñoom dañuy génn ci diina ji ndax Eh, su fekkee ne nit ki dafa nekk yàlla yàlla nekk yàlla moom moom mook yàlla ñooy ànd pour pour yàlla gi mën a mat su ko defee foofu lii lii am mooy isqaatu takaalifi yi maanaam lépp lu yàlla wàcce woon ci ay yonent ak ay téereek yépp dafay daanu ama amatu fa maanaa ndax amul koo xam ne jaam la ci diggante bi Euh, amul jàmm li am rek mooy yàlla mooy lépp leneen amul lu dul yàlla cest à nit amul jinne amul kii de non yàlla kese moo am su boobaa jaam amu fa euh, lu ñu war a jaamu amu fa sharaa yu ñuy tëral amu fa diine amu fa dara amu fa loolu nag képp ku ko gëm da ngay génn ci diine ji loolu loolu mooy mab naa bi nga xam ne ci la ñëpp taxaw c'est-à-dire ibnu taymiya ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu mënti doon même ñun ku gëm loolu yow da ngay génn ci diine ji ci sunu ci sunu gëm-gëm ak gëm-gëmu borom téere bi yépp kon euh, li mu tëral mooy dafa tëral ne euh, ñi muy waxal ñëpp génn nañ ci diine ji donte waxu ko waxu ko ci làmmiñam ci biir téere bi waaye maanaam gëm-gëm bi mu la taqal gëm-gëm boobu boo ci taqee yow dangay génn ndax munul ànd ak lislaam eh, moo tax léeg-léeg mu tuddi leen ay malaaxida eh, léeg-léeg mu tuddi leen baataniyun comme ci manti doon yow yaa ngi ci bitti eh, ci biir kii boobu nag daf cee jagleel tarixa tijaan lu baree bari ci biir mabxas boobu nga xam ne daf ko teg pour wone waxdatul wujud ak ittihaad ak xulul niñ ko gëmee ni ko suufiyanke yi gëmee te ñetti aqida yooyu yépp ab jullit du ko gëm waaw wala boog day nekk leneen lu dul jullit moom eh, ci biir loolu nag bi muy indil tarixa tijaan wàllam ci biir loolu ak ni ñu gëmee wax datul wujud ci la indi wax ji nag wax ji ma wàccee nii mu wax ne moom boroom téere bi ne yaqulu tijaani yaqulu cheikhu tijaani wa huwa yashraxu qawla shaacir suufi eh, ida إذا صفا برمي فهو ونك تنك بروزن بمن جب وإذا صفا وإذا صفا لك من زمانك واحد فهو المراد وأين ذاك الواحد من يقول موم شيخ موي وخني هذا البيت له معنيان المعنى الأول وهو الشاهد هنا يعني إذا صفا لك الواحد من زمانك فالمراد به هو الإله الحق وصفاؤه محق الغير والغيرية لا أين ولا كيف ولا نسبة ولا توهم ولا رسم ولا اتصال ولا انفصال إلا هو فيه منه عنه له به loolu موي لي مو toxalee jële ko ci jawahirul maani borom téré bi dafa wax ne dafa toxale ci borom jawahirul maani mu wax ne cheikh mi ngi firi ab bayt bayt bi mooy wa idha safa laka min zamanika waxidun fa huwa al almuraadu wa ayna al alwaxidu maanaam dafa mel ne li muy wax mooy su fekkee ne sell na di la ñeel maanaam set na wecc kenn ci jamono ji kooku mooy kañuy wut waaye ana kooku kenn kooku anam wax ju xaw la cheikh wax ci biir jawaahir ne bayit boobu de am na ñaari maana maanaa ju njëkk ji moom lañ ci namm fii ñu toll nii moo di ne e, e, kiy sell di ñeel maanaam kiy set wecc ci zamaan bi ci jamono ji ci sa jamono kiñ ci namm mooy al ilaahul xaq mooy yàlla safaa uhu nag maanaam seetlu gi yàlla googu mooy lan maanaam ni mu sete wecc mooy lan mooy maxqul xayri wal xayriya mooy fànq gi muy fànq li nga xam ne mooy keneen ak leneen foofu mu toll laa ay na kenn du wax fan la laa kayfa la nisba, la توهم la rasm, la tisal, la انفصال dara taqowul ak mom dara tàqalikowul ak mom ken mënu misal ken kenn mënu ken xalaat déterminer martabatul ahadiya moom la doon junju ci kaw sànq ndax Euh, page bi xeyna mom limu indi rek moy bayit bi ci bopam waye wax ji mi ngi tambale wa amma martabatul ahadiyati fala tawhid fiha martabatul ahadiya nag loolu dara jokkuwu ci yalla manam fofu mindif amu ci dara amu fa amul dara lo xamne manes nako manes nako jokale jokkale ak yalla manes nako takale ak yalla ak yu mel non lolou doon Eh, mu ne kooku nga xam ne safaa nag waaxit boobu mooy yàlla eh, lahu bi nga xam ne ci la boroom téere bi yam boo continuer dafay wax ne fa haada huwa almuraadu alladi tawajjahat ilhimamu kulluha ilayhi kooku mooy muraad mi nga xam ne maanaam ki ñu namm te mooy yàlla ki nga xam ne yitte yépp ci moom la dëgmal maanaam da koo dëgmal moom mooy yàlla wa ayna daaka alwaxidu alladi safa lahu alwaxidu bisafaa almadkur maanaam ana kan mooy ki nga xam ne moom dafa set maanaam ki muy junj ne ayna daaka alwaxidu mu ne ayna daaka alwaxidu googu dalilun ala gaayati budihi mu ne ay na zaakal waaxidu liñ la wax naan ana kooku mooy daf laa bëgg a woon ne yàlla moomu ñu junj moom euh, ku sori la lool ba jégg dayoo ci ak sori lii mooy maanaa bi maanaam yàlla dafa nekk ci martabatul ahadiya boo xam ne dafa set wecc maanaam dara jokkuwul ci moom foofa mu nekk dañ faa maxq al xayr wal dara amu fa كين من كين منكو مثال كين منكو جنجو لا أين ولا كيف ولا درء ولا نسبة ولا توهم وانت فينك نك موي وخي دافاي تودول نيت في يالا كيسه موم مو نيك لي نك نوتي واجي مانا ديغي اتحاد ولا حلول من لولو موما جاخال فيم تولني ndax yàlla subhanahu wa taala dafa am ay ay maratib yu bari yo xamne daf ci daf ci tajalli martaba yooyu nag daanaka ay jurom naar yoy lay tollol dafa am lu ñuy tuddee azaatu saazaj am lu ñuy tuddee martabatul ahadiyya am lu ñuy tuddee martabatul wahda am lu ñuy tuddee martabatul wahidiyya wala ñukay koy wax xadratul uluhiya am lu ñuy tuddee martabatul arwah am lu ñu tuddee martabatul misaal am lu ñu tuddee martabatul xis wala aalamul xis bu ci nekk nag dafa am yu mu jagoo ca martabatul ahadiya nag eh, foofa loolu la ñu tuddee wujudun sërf maanaam loolu yàlla kese kese kese moo nekk dara mënu faa yegg hmm, dara mënu faa yegg eh, su boobaa loolu lañuy tuddee maxqul xayri wal xayriya foofa nag la cheikh doon wax ne la ayna wala kada ma mais tudd fi ab mbindéef boo xam ne xulul wala ittihaad wala waxdatul wujud wala maanaam nu ko nit ki mën a déggee ci tex bi loolu moom sama problème la ba fii ma toll nii waaw nuñ ko mën a déggee ci tex bi loolu dana ma jaaxal torop Eh, moo tax eh, mu yemale ko foofu mu ko yemale lahu bihi fa hada huwa almuraadu alladi tawajjahat alhimamu kulluha ilayhi loolu su ko indi woon du ko mën a firi su boobaa maanaam kii mooy ki ñu namm ki nga xam ne lépp yitte ci moom la dëgmal jëm xam nga loolu boo ko xasoon a wax nga xam ne am na ku ñuy waxal te kooka mooy yàlla léegi li fiy dugal xulul walla wala ittihaad loolu man comprendre ma ko lu benn waa ji li muy wax leerul ci leerul leerul ci boppam wala boog mënu ko expliquer ndax daanaka waxu ci dara euh, lii mu indi nag fii nag. كموي والشاهد أنه نصح المريد بأن يلزم الشيخ الذي يعاصره شريطة أن يكون ذلك الشيخ قد صفى ثم فسر صفاءه بمحق الغير والغيرية بعد أن وصفه بأنه هو الإله الحق lool nag معنا مني waar maanaam mu ne li mu namm Euh, dafa ñaax mbindeef mi walla murit bi wala taalibe bi ne ko na takkook sëriñ bi nga xam ne euh, moom la jamonoon teel euh, moo am ci jamonoom waaye nag bi chart sëriñ booba na nekk na nekk ku seel na nekk ku sell sell gi nag mooy mu mu mu mu mu mu fànq mu effacé lépp luy keneen ak lépp luy leneen lépp luy keneen ak leneen e, te kooku la ñu mesal ne mooy ilaahul xaq léegi li ma bëgg li ma xamagul mooy cheikh dafa jubloo wax ne kon sëriñ bi nga war a jokk moom mooy al ilaahul xaq jàpp ma ne loolu la waa ji bëgg a tuumaal ne loolu la cheikh wax ndax loolu feeñu maanaam dafa amul fenn foo mën a weññee mbir mi ba mu mën a ba mën laa jox loolu ci biir e, su fekkoon ne nag su fekkoon ne nag dafa dafa doon indi eh, dafa doon indi maanaam maanaam ñaareel mi seex indi ne bayti bi dafa am ñaari maanaam maanaam ñaareel mi su fekkoon ne moom la borom téere bi indi ngir sukkandiku ca ci lii muy wax nii dana xaw a jege ndax maanaam ñaareel bi moom ci nit lay wax waaye maanaam bu njëkk ba moom ci yàlla lay wax maanaam ñaareel bi mooy ida safalaka min min zamanika waxidun يعني صاحب يوفي بجميع أغراضك دفعا وجلبا حتى لا يقصر عنك في شيء فهذا الواحد هو المراد وأين ذاك الواحد الذي هذا وصفه maanaam maanaam ñaareel bi ma nga xam ne bayit bi mën na ko mën na ko firi moo di ne cheikh daf ne li bayit bi firi mooy ci maanaam ñaareel bi mooy su fekkee ne am nga benn waaye daal boo xam ne waaju set wecc la koo mën a àndal koo xam ne dana la mën a jàppale ci say mbir yépp moo xam lu ñuy jañ la wala lu ñuy lu ñuy bijji ci aw yiw wala aw lor mu mën la caa kiiwal ba nga xam ne du du du du gàttañ lu ci dara ci say mbir e, jàppal jàppal kooka jàppal kooka ndax kooka mooy ki ñuy wër waaye kooka anamu maanaam kooku néew na ci jamono ji nga gis ko daal Eh, lool moy manam ñaarel bi li mom ay nit lay wax nit ko fi gis ku sel ko meuna japp te mu meuna eh, jappante ak yow ci say bëgg-bëgg ak eh, say yi nga say say say mbiri bop yep nga xamne lo ci soxla mën la ca jappale lo ci ki mën la ko mën la ko fànqale koko moy xarit deug nang ko japp ndax moy murad bi waye koko jafé na ci jamono ji wa ayna na daakal waaxidu mom ci nit lay wax xeyna na indi won lola Eh, nga méngale ko lii waaye la nga xam ne ci yàlla yi kese lay wax waxul ci leneen maanaam yàlla mu am daraja safaa goo xam ne amul lu mu jaxasool loolu la ñuy tuddee martabatul ahadiya nga xam ne eh, moom day tajalli ci boppam moom yàlla maraati bi ñu waxoon yëpp nag am na am na ci yoo xam ne eh, mbindeef da cee jokk lu mel ne martabatul waaxidiya kooku lañuy tuddee xadaratul uluhiya faaw am ñoo xam ne dañuy jaamu yàlla xadara boobu faaw mu am e, ñoo xam ne jaamu day dafay jóge ci ñoom faaw yàlla am ñoo xam ne dañ koy jaamu ci xadara boobu loolu moo tax mbindeef yi am loolu moo tax jaam yi am di jaamu yàlla wante nag loolo jaamuñu yàlla ci martabatul ahadiya waaye ci martabatul waaxidiya gi e, fala lool di génne moo tax ñu koy tuddee xadaratul jamci xadaratul rububiya fayyad fayaad zahirul wujud zillul waxda ahadiyatul kasra ak yu bare bare am yenen martab martabatul wahda amna nga xamne ci ci la tajalli ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wasallam leg leg ñukoy wax al haqiqatul muhammadiyya yoy yëpp ay mbiri tasawuf la wante lii nga xam ne nag moom la indi e, indi waxu cheikh ba noppi daat ne nas bi ci boppam dafa feeñ fis e, ci ci waxda ci ci ittihaad ak waxda waaye xulul lay wax man man loolu laa xamul maanaam texte boobu mu wax noonu laa xamul moom loola nan lañ ko mën a comprendre ci biir wax jii nii maanaam nan lañ ko mën a génnee ci biir wax ji daal loolu dana ma jaaxal trop Euh, xam naa ne eh, bii moom duñu ci duñu ci yàgg euh, dañ doon won maanaam léeg-léeg bu indee benn texte dafay indi texte ba pare indi déggin boo xam ne moom moo moom moo ko déggee te déggin bi sax moom ca cosaan kenn mënu ko déggee ci wax ji ah kenn mënu ko déggee ci lii mu bëgg a wax waaye doo doo doo xam maam lan moo tax mu déggee ko ci noonu moo euh, tax mu déggee ko ci noonu ñu daal buñ amee njortu gu rafet daal dañuy wax ne waaj daal eh, dafay wax lu mu xamul dafay wax lu mu xamul dëgg fa yàlla dafay wax loo xam ne xamu ci lu bari xëy na nag lay lay cosaan la mooy eh, ngay wax ci loo xam ne jàngoo ko wala ngay wax ci loo xam ne xamoo ko ndax léeg-léeg mu firi ay baat yoo xam ne ci tasawuf eh, baat yi ci boppam nit yi tasawuf yi jubluwuñ ci loolu muy yox moom eh, léegi wàccee naa tex boobu ci jawaahirul maani ci place bi nga xam ne fa la waxee wax ci ñi am xel te xam tuuti ci li ñuy wax ñu jàng ñaari texte yi li mu wax moom borom téere bi ak li borom jawaahir wax ba xam est-ce que mënees na ci méngale ba mën cee génne moom lim ci bëgg a dégg daal waaye xam naa ne loolu moom minal mu xaal maanaam li nga xam ne mënta nekk aslan e, ca lay bokk xam naa ne moo tax loolu duñ ca yàgg point boobu dañuy indiwaat beneen boo xam ne moo topp moo topp ci wax ji direct boo xam ne yokk na ko ci itam li ngir dëgëral ne waxdatul wujud googu dafa am ci biir tariqa tijaan ah, léegi ñaareelu mbir mi lañuy lañuy wàccee texte bi nga xam ne moom la wax ci jawahirul maani eh, wax ji ma indi nag mooy jokk ci li mu waxoon ci li mu njëkk wax li njëkk weesu nii mooy wa ida safalaka bam ca paree ci lay gën a dëgëral loolu nag mu ne wa hada ma akkadahu lama dakara maqaamaati rijaal inda suufiya fa dakara maqaama littihaadi bi qawlihi wa huwa مطالعة الحقائق بلا حجاب ولا خصوصية ولا بقاء للغير والغيرية عينا وأثرا وهو مقام السحق والمحق والدك وفناء الفناء فليس في هذا إلا معاينة الحق في الحق بالحق فلم يبق إلا الله إلا الله لا شيء غيره فما ثم موصول ولا ولا ثم واصل آه، مننك وصاحب هذه المرتبة هو المعبر عنه بالكبير بالكبير فمتى عثر آه، المريد على من هذه حضرته كان في حقه أن يلقي نفسه أن يلقي نفسه بين يديه كالميت بين يدي غاسله <clears throat> بين يدي غاسله لا اختيار له ولا إرادة ولا إرادة ولا كذا آه، ليلة موم ليلة lii la جي ci jëlee ko ci jawaahirul maani waaye ci moom def na ci ay soppi maanaam dindi dara yokk eh, indi dara xasaf dara dugal dara loolu am na ci biir lii ma liir eh, dina feeñ nag su ma indee textu jawaahirul maani bi waaye itam eh, lim ci bëgg indi itam loolu texte bi attunu ko texte bi mu indi nii attunul lim bëgg lim ko bëgg lim ko bëgg a yan lépp Euh, ñu tàmbalee ci euh, li mu wax moom ne euh, cheikh gën naa dëgëral waxdatu wujud boobu walla xulul boobu wala ittihaad boobu gën maam gëm-gëm bi mu jiituloon bi mu njëkkoon a wax gën na koo dëgëral ci bim ñëwee xam nga wa ida safa laka min zamanika waaxidun moom la doon firi loola ci la gëm-gëm bu bon ba nekk gëm-gëm bu bon boobu la cheikh di dëgëralaat xam nga gëm-gëm bële moom sa jotut sax moom jotut sax sax moom jotu caa wax dara lu leer waaye nee na moom la cheikh di dëgëralaat kañ la ko dëgëral mu ne lamma zakara maqaamaati rijaali inda te fii e, fasl bi du bu ñuy tuddee maqaamaatu rijaal yi maanaam du du page boo xam ne dañ dañ dañ ko tënk pour di ci tudd maqaamay góor yàlla yi maqaamay góor yàlla yi e, fasl bi faslu saalis la tudd fi maarifati xaqiqati cheikh alladi yuttabacu fi saairi aqwaalihi wa afaalihi e, fasl bi de loolu lay wax maanaam kan mooy sëriñ dëgg-dëgg kuñ war a topp loolu bi di xamle fii fa zakara maqaama littihaad bi mu wax itam loolu amut ndax fii waxuñu fi xulul wala ittihaad wala dara ah. loolu waxam la moom mu ne waxuwa boo ne waxuwa nag da ngay jàpp ne kon kii liir day jàpp ne waxuwa ay maqaamul ittihaad mooy te cheikh jubluwul loolu waaw ah. te nusxa yi wér sax wahiya la ñuy wax ndax mu aayana moo ko jiitu ثم معاينة وهي كذا xam naa ne damay wàcce tex bi nga xam ne moo jógee ci jawaahir ngir ñiy liir ñoo may ñooy gën a jekku mbir yi ñu xoolee ñaari tex yi danañ xam lan la waa ji génnee ak lan la ci dugal cheikh dañu ko laaj fii Sidi Ali Harazimi def ne suila an xaqiqati cheikh il waasili ma huwa maanaam eh, sëriñ bi mat sëriñ dëgg-dëgg mooy kan ki yegg ci boroomam mu ne ko xaqiqatu cheikh alwaasili fa huwa alladi rufiat lahu jamiu عن كمال النظر إلى الحضرة الإلهية نظرا عينيا وتحقيقا يقينيا فإن الأمر كله فإن الأمر أوله محاضرة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر كثيف ثم مكاشفة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق ثم مشاهدة وهو تجلي الحقائق بلا حجاب لكن مع خصوصية ثم معاينة وهي مطالعة الحقائق بلا حجاب ولا خصوصية ولا بقاء للغير والغيرية عينا وأثرا وهو مقام السحق والمحق والدك وفناء الفناء فليس في هذا إلا معاينة الحق في الحق للحق بالحق فلم يبق إلا الله لا شيء غيره فما ثم موصول ولا ثم واصل ثم حياة لول أمول تي وخ وهي تمييز المراتب بمعرفة جميع خصوصياتها ومقتضياتها ولوازمها وما تستحقه من كل شيء ومن أي حضرة كل مرتبة منها ومن ولما ولما وجدت وماذا يراد منها وما يؤول إليه أمرها وهو مقام إحاطة العبد بعينه ومعرفته بجميع أسراره وخصوصياته ومعرفته يبني كل وخواجي ومعرفته ما هي الحضرة الإلهية وما هي عليه من العظمة والجلال والنعوت العلية والكمال معرفة ذوقية ومعاينة يقينية وصاحب هذه المرتبة هو الذي تشق ولا تشق إليه المهامه في طلبه لكن مع هذه الصفة فيه كمال إذن الحق له سبحانه وتعالى إذنا خاصا في هداية عبده في هداية عبيده وتوليته عليهم بإرشادهم إلى الحضرة الإلهية فهذا هو الشيخ الذي يستحق أن يطلب وهو المراد بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي آه، جحيفة آه، سل العلماء وخالط الحكماء واصحب الكبراء وصاحب هذه المرتبة هو المعبر عنه بالكبير آه، وخم جاني دور door a new دور c'est-à-dire mi ngi بري a indi loo xam ne daanaka amoon na solo ci wax ji ndax doon na wone lan la ñu bëgg a wax wala lu bokk fan la wax ji ci lan la jëm eh, fii Cheikh dafay jàngale maanaam nit ki yegg ci yàlla wala doomi aadama ji wala wala wali yu yu mat a topp wala sëriñ bi mat sëriñ dëgg mooy ki nga xam ne daanaka xujub yi dox ci digganteem ak boroomam yëpp dañ ko kiiraay yi dox ci digganteem ak boroomam yëpp dañ ko ko dañ ko ko wuññil dañ ko ko wuññil su ko defee muy jàkkaaroog alxadratu ilaahiya xadratu ilaahiya nag du jëmm yàlla waaw e, leneen la di ko gis e, di xam li nga xam ne moom moo cay dox ak mbir ya na muy demee e, ndax mbir yi nag ñetti étape la nit di jaar moo di ne muxaadara mooy mooy am yooyu yëpp ci ni nit ki di di xamee xaqaayiqu mbir yi nga xam ne moom moo am mutaalaa soo ci jógee mukaashafa soo ci jógee mushahada soo ci jógee na nga door am muayana mu ne muayana boobu waxuwa waa ji ñëw daan ne ittihaad waxuwa xam nga dangay ngay buñ ne laa ittihaad da jàpp ne kon cheikh ca ittihaad la doon wax te fii maanaam lu jëm ci ittihaad dafay nekkut fii yépp léegi nag man maanaam man li ko bëggoon a laaj su fekkoon ne sañ naa ko laaj cest maam lan mooy mutaalaatul xaqaayiq maam man li ma bëgg xam fii mooy na naka lañuy def ba xam ne ittihaad dafay am maanaam nit ki dafay dem ba duggante ak yàlla jaam bi dafay yéeg ba moog yàlla ñu nekk benn mbir loolu fan lay nekkee ci biir wax ji nii eh, est-ce que xaqaayiq yi mooy jëmm yàlla la bëgg a wax wala lan wala lan loolu eh, loolu moo leerut fii eh, nit ki ci boppam ni muy gisee xaqaayiq yi eh, xasaba maraatib yi nga xam ne moom lay kii dana dem ba yàlla kese lay gis ci lépp maam yàlla lay teewlu ba ba dañ wala ba ba fanaaw ci lépp loo xam ne du yàlla fanaa am maasi wallah léegi loolu nag su amee falam yabqa illa allahu la shay'a ghayruhu yàlla rek moom mooy des ci kanamam dara desu fa ah, amul leneen luy taxaw ci kanamam léegi loola ci boppam maanaam naka la maanaam daal man man problème bi ma am mooy ittihaad gi nekk fii laa bëgg a xam eh, maanaam ci ci ban anam la fi nekkee te su fekkee ne a ngi fi lii mu tëboon moom moo di ne e, sëriñ bi mel noonu bi yegg ci boroomam kooka moom lañ moom moo am ndigal moom moo am ndigal gu wér ci wommat jaam ñi ak e, kii leen jëme leen ci yàlla subhaanahu wa kii mooy sëriñ bi nga xam ne moom moo jara topp moom moo jara wuti moom la moom lañu jublu ca wax ja wax ne dee leen ànd ak wasxabil kubara dee leen ànd ak mag ña mu ne saaxibu hadihi al martaba huwa al muabbaru anhu bil moom la ñu wax e, al mag mi ku mel noonu nag ku mel noonu nag nga xam ne moom digganteem ak yàlla dara dafay doxut xujub yi am ci diggante jaam bi ak boroomam ba léeg-léeg mu mën ko fàtte léeg-léeg mu mën a def naka su dul noonu léeg-léeg mu mën a nàngam yooye lañ koy roccil benn par benn ba mu jeex su jeexee nag loolu mooy ak wusuulam loolu mooy yeggam ci yàlla subhanahu wa taala yegg googu tamit am na lu ko gën a am na lu ko féete kaw ah. e, léegi nag loolu nag ka mel noona kooko moo jar a topp kooko nag ka koy topp taalibe ba dafay summeeku ci iraada maanaam ci ci ay bëgg-bëgg li sëriñ la ko sëriñ booba tànn rek loolu rek la war a def maanaam warul am tànni boppam warul def lu dul la ko sëriñ ba digal dafay mel dafa war a mel ne néew ci kanamu sëriñ boobu eh, foofu la doon waxee loolu léegi nag eh, maanaam ittihaad daal nan lay war a amee foofu la lool loolu moom jaaxal na ma lool lool lool eh, te ku ma ci tane rek nga nga nga dimbali ma ci ndax fii sëriñ bi war a ñu yóbbu nit ñi ci yàlla loolu ñoom moom lay xam xamle nii wax na fa sax ne sëriñ boobu maanaam lu jafe jafee am la waaw ndax nit ñi ci boppam ñoo dematu ñoo ñoo àndatul ak kenn te yàlla tax comme àndatuñu kenn te yàlla tax nag ña yàlla ñor te dara ñorul leen lu dul yàlla nga xam ne dañoo seey ci leneen lu dul yàlla sañ ñoo def leneen loo xam ne ci bakkan lañ koy teg wala nangam eh, ñooñu dañuy daw nit ñooñu nga xam ne àdduna rek moo leen tax di jokk ci sëriñ si waaw sëriñ yu mel noonu di leen di daw. Eh, foofu sax la la wax wax ju gudd la ci xam xamle sëriñ mooy kan e, waaye nag moom wax na fi ne cheikh ma ngay wax ci ittihaad daati indi wax ji tàmbale ko huwa da jàpp ne ittihaad la doon wax e, naka noon tiwit dindi na fi yu bari e, daati xool lam lam ca soxla daal mu taqale baat yooyu daati ne seex a wax loolu la gënoon a yàlla sax nga def ay tomb ñu xam ne am na wax ju ju jóge ci diggante bi waaye moom dafa dafa dafa xool la ko neex rek mu bind ko la mu jàpp ne xëy na bu ko indee am leneen lu mu leeral mu mu tëb ko daati indi nag wa saaxibu hadihi al martaba huwa al muabbar anhu bil kabir ak nangam ak nangam xam naa ne wax wax lépp li ñu bind wala li ñu li ñu li ñu noté woon dana xaw a jafe daanaka dañuy dañuy dañuy yem ci benn benn mbir rek lañ ci yokk su ko defee xam naa beneen yoon ñu indiwaat yeneen i mbir eh, yoo xam ne am na ci biir téere bi eh, incha allahu taala eh, xam naa bi ci la ñuy yem mooy fi mu waxee ne yaqulu tijaani tijaani wax na ne fa kullu aabidin aw saajidin li gayrillahi fi zaahiri fa ma abada wala sajada illa lillah لأنه المتجلي في تلك الألباس داتي دف أي أي نيتي تومب دان قال سبحانه وتعالى لكلمه موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني والإله في اللغة هو المعبود الحق وقوله لا إله إلا أنا إلا معبود غيري وإن عبد الأوثان من عبدها فما عبد غيري ولا توجه بالخضوع والتذلل لغيري Euh, mu ne mi ngi nekk ci jawahirul maani euh, damay jàpp ne dafa toxal ñeneen ndax man ñi ma gis ñi bind ci tarixa tijaan yi yëpp it amul kenn koo xam ne la nga bind euh, génn na texte bii nii maanaam génn na fii mu ko tàmbale ak fii mu ko yemale ma jàpp ne xëy na moom dafa dafa gis ñooña mu recopier seen wax indi ko tegaat ko fii rek waaye su fekkoon ne moom dafa dellu ci jawaahirul maani wax ji du mat a indi du mat a indi ndax wax ji tàmbalewul fii itam eh, leneen la doon wax loola nag lañuy indi wax ji ñu tas ko eh, ngir xam lan moo nekk ci wax ji ba mu jeexee fa kullu aabidin aw saajidin ndax loolu mooy li mujj ci wax ji lan moo doon wax ji dëgg-dëgg ku ko xam da nga xam ne eh, lii ñuy wax ak eh, liñ ko bëgg a yen eh, dañoo laalewul ci genn wet cheikh na ahmad tijaani radiallahu taala anhu daf doon jàngale ci biir jawaahirul maani wala boog dañ ko laaj wa sa'altuhu an qawlihi taala qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabiuni yuhibbukum allah loolu lañu ko laaj mooy lan maanaam nees koy mën a dégg yàlla nee na su fekkee ne dangeen ma bëgg eh, na ngeen topp yonent bi wala yonent bi mooy wax ne yàlla nee na su fekkee ne bëgg ngeen bëgg ngeen ko ngeen topp ma man soo leen ma toppee moom dana leen bëgg aywa léegi bëgg jaam jaam di bëgg yàlla ak yàlla di bëgg jaam loolu noonu lañ koy mën a déggee eh, cheikh nag ngir tontu loolu mu yaatal ci yaatal bu gudd lool sax ci xamle maanaam yàlla jaam yépp la bëgg jaam yépp yéeféer yéeg lépp lu yàlla bind daf ko bëgg waaye tamit lépp lu yàlla bind loola dafa bëgg yàlla waaye ku ci nekk ci ñaari wàll yooyu moo xam jaam bi wala yàlla e, sa bëgg bi nga bëgg yàlla bëgg bi mu bëgg mbindeef yi ay maratib la mbindeef yi itam bëgg bi ñu bëgg seen boroom ay maratib la léegi nag yan maratib mooy maratibu mahabbatillahi lil xalq maanaam maraati bi nga xam ne mooy maraati bu yàlla bëgg gim bëgg jaam yi ay maraatib la tolloowuñ ni mu leen bëggee yàlla ni mu bëggee yonent bokk nag ni mu bëggee keneen ni mu bëggee nit ñi bokkut ak ni mu bëggee yéeféer yi ni mu bëggee ñooñu bokkut ak ni mu bëggee ñooñu maanaam yëpp ay maraatib la martaba yu nekk nag ña cay gën a tuutile ña cay gën a néew aw sas wala aw nar ca mbir ya mooy yéeféer yi même yàlla bëgg gi bëgg jaam yi ñoo ci gën a néew la ñoom waaye jaam yi tamit bëgg giñ bëgg yàlla ay martaba la martaba ba gën néew tamit yéeféer yee ko moom yéeféer yi ñu bëgg yàlla lañ waaye ñoo ñooy martaba bu mujj ci bëgg yàlla gi mais lépp lu yàlla bind danga bëgg sa borom waaye yàlla tamit lépp lu mu bind da ko bëgg léegi nag ñëw ci tafsil yooyu nag Euh, fa la wax ja nekk te tamit fa la jeexalee wax jooju euh, fa kullu aabidin aw saajidin euh, <coughs> martaba ba yi nga xam ne moo ne moo dox ci diggante bëgg gi yàlla bëgg jaam yi loolu daanaka duñ ci yàgg ndax lañu soxla ma nga ca beneen côté ba martaba boobu daf ko séddale ci daanaka ñaari xaaj wala ñett Euh, ñaari xaaj yooyu dafa am nu mu tuddee almar almahabatul xaasa almahabatul xaasa euh, loolu nag euh, ña ko yàlla dugal mooy yonent yi ak ak anbiya yeeg mursaloon yeeg yu mel noonu daanaka ak xeet ci nit yàlla yi loolu dugal na leen ci mahabatul xaasa googu ca la ñu amee nag Eh, ca lañu amee la ñu am ci seen borom mu ne képp koo xam ne àggoo ci martabatu siddiqiya doo dugg foofu daanaka anbiya yeeg mursalun yeeg siddiqun nii ñoom ñoo ciy dugg ñoom ñooy dugg ci mahabbatul xaasa googu la ñuy am ci seen borom nag moo tax ñu ñu nañu soppe na leen seen borom soppe moo tax mu teg leen ca daraja yi mu leen teg eh, yaatal na ci lu bare bare bari waaye nag am leneen lu mu tuddee al mahabbatul amma mahabbatul amma boobu mu ne ci la jamiul awalim yi dugg xatta al kufaar fa innahum maxbubuuna indahu fi xadrati qawlihi fa axbabtu an an ucraf fa xalaqtu xalqan fa tacaraftu ilayhim fa bi carafuni mu ne jamiul awalim maanaam mbindeef yépp dañoo dugg ci mahabbatul amma jooju mahabbatul amma jooju ci lañ dugg eh, ndax yàlla moo wax ne dafa sopp dafa sopp a bind ay mbindeef maanaam ñëpp dañoo dugg ci mahabba jooju moo tax sax mu bind leen moo sax mu bind leen eh, léegi nag mahabba jooju nga xam ne yàlla da ko bind da ko bëgg da koo bëgg jaam yi ba tax mu bind leen moo waral ñoom ñépp ñoom ñépp dañoo am wàll ci ci mahabba jooju ndax lan même yéeféer bi waa lan moo tax yàlla bëgg yéeféer ndax mu ne yéeféer juddoowul ak kéeféer juddoowu ko ndax ñépp ba ñuy jóge ci yàlla maarifatu taama lañ am ci moom waaw ah, al maarifatu billah fitratallahi allati fatara nnaasa alayha moom cheikh xam yàlla la ko la ko la ko firee maanaam al billah loolu nag xadis ba yonent bi moo koy dëggal Eh, kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw kada waaye moom daf ne moom cheikh daf ne walakin taraa alayha aljahlu bi muxaalatatiha lil jismi eh, mu ne jahlu maanaam réere yàlla kañ la dugg jëmm yooyu bañ nekk ay yéeféer mooy bi ñuy jaxasoog yaram yi waaye bañ nekkee ci aalam arwaax moom ñoom ñëpp xamoon yàlla eh, balaaga ñoom ñëpp ko wax woon ñëpp ko waxandoo woon Eh, loolu moom moo jëm ci ci ci ci kii ah. eh, moo tax it ñépp dañoo bëgg yàlla subhaanahu wa loolu moo indi ñépp bëgg yàlla eh, dana ci leeral lu bare bare bari ci wàll woowu xam naa dañ koy sotee ngir dem ci bëgg gi mbindee fi bëgg yàlla noonu la continuer nag ba ñëw ci naan bëgg gi yàlla bëgg jaam yi loolu weesu na ko ñu ñëw ci li nga xam ne moo ëpp solo ci mbir mi te ca la wax ja nekk mooy mahabbatul xalqi lillah mu ne wa amma mahabbatul xalqi lillahi fa hum fiha aydan ala maratiba maanaam mbindeef fi ay maratib lañ ci bëgg gi ñu bëgg seen borom al akabirul aalawna manahahum mahabbata zatihi فهم بها غرقى في بحار التوحيد la يعرفون غير الله وتعالى ولا يلتفتون إلى سواه ولا عبرة عندهم بغير محبة بغير بغيره محبة واعتمادا والتجاء والتكي وحملون نيوم نيوم مرتبو جيك بي لن يوخ الأعلون جلا يننتي دوغك كي يملون من ودونهم في المحبة موي عامة الأولياء yuhibbuuna allaha li fadlihi wa lima manaxahu min juudihi wa karamihi ñooñu dañoo bëgg yàlla eh, ci li leen yàlla xéewale ñële moom dañoo bëgg yàlla ngir jëmmi yàlla ji yonent yeeg ki yeeg yooyu nitu yàlla yi nag seen mahabba dañoo war a sant yàlla subhanahu wa taala aywa eh, ci ci mahabba nag ca la nitu yàlla yi toll waaye mooy maxaba ji nga xam ne ñoom ñëpp ñoom yonent ya nga xam ne weesu nañ loolu ñoom moom lañ doon junj seen ñooñ ngir ñu koy def mooy wazkuru ni'matallahi wazkuru nangam wazkuru nangam eh, loolu mooy maxaba ji nekk ci jaam boobu nga xam ne moom dafa war a sant boroomam waaw ah, dafa war a fàttaliku boroomam dafa war a nangam maxaba jooju nga xam ne amatul awliyaa yi ci lay dugg waaw ah, mbindeef yëpp a war a bëgg seen boroom waaye ñi yàlla defal xéewal nag ñoom am na mahabba xaasa boo xam ne dañ dañ danañ fa yegg danañ ko bëgg seen borom eh, te loolu nag mahabba ji nga xam ne moom la anbiyaa yi am ak mursalun nii moo gën a féete kaw ndax ñooñu bëgguñu yàlla ngir lu leen yàlla defal wala yàlla kii waaye yàlla moo leen baaxee ñu bëgg jëmmam ji ngir jëmmam ji beneen mata mooy ñi bëgg yàlla ngir li leen yàlla defal eh, léegi ñetteelu mahabba gi gannaaw bu mahabbatul eh, nit yàlla yi ak yonent yi bu jàllee mahabbatul imaan yi billah bëgg gi ñu bëgg yàlla ndax bëgg yàlla ak bañ ko mënuñoo ànd te mënoo gëm yàlla tamit bañ yàlla loolu mënul nekk kon am na mbëggeel goo xam ne moo dox sa diggante ak sa borom eh, loolu lañu tuddee mahabbatul imaan yi billah ñeenteelu mahabba bi nag mooy mahabba ji jëm ci kufaar yi bëgg giñ bëgg yàlla bëgg giñ bëgg yàlla moo tax ñu nangoo jaamu dara Eh, diggante boobu nag dafa am ñaari mbir dafa am ñoo xam ne wajaxadu biha wastayqanatha daf leen di dal mooy ñoo xam ne dañoo bëgg dañu maanaam bëgg yàlla gi am na moo waral jaamu di am wante jaamu googu ñoo ko tey di jaamu leneen lu dul yàlla wante xam na ne yàlla kese moom moo fi nekk am ñoo xam ne nag dañoo bëgg yàlla daati askanale uluhiya gi ñu askanale ko keneen ñu askanale ko keneen waaye yàlla nag moo mën a def ay tëjaliyaatam ca leneen lañuy jaamu ngir loola ñu mën koo jaamu ñoom ndax lan moo indi seen xol yi ba ñu gis ne lii rek lañ war a jaamu moo dina yàlla subhaanahu wa moom moo feeñ ca loola su ko defee mi ngi mel ne yàlla subhaanahu wa boo ko bañee jaamu danga jaamu leneen loo xam ne moo la xiirtal pour nga jaamu loolu c'est-à-dire koo jaamu lu dul tajalli yàlla maanaam lu dul ne yàlla subhaanahu wa moo ca ànd ca loola moom la yàlla di wax ne walillaahi yasjudu man fi samaawaati wal ardi tawan wa karhan yàlla moom la yàlla yàlla dana ko sujjootal lépp lu nekk ci kaw suuf ak ci kaw asamaan moo xam nga nangu wala nga bañ karhan googu nag mu ne wa hadihi al ibaara hiya al mu'abbaru anha bi sujudi karhan maanaam ni ñu waxee ne ñooñu dañuy jaamu yàlla te yëguñu ko cest à yàlla lañu bëgg a jaamu dem di ko askan la keneen mii mel ne koo xam ne daf doon daf doon daf doon daf doon nelaw daf doon nelaw mi ngi jël ab chargeur bëgg koo roof ci courant bi pour charger téléphone mu jël chargeur ba dugal ko ci barigo bi waaye charger la bëgg charger la bëgg a def waaye bi nga ko gisee moom muy tañaxu di tañaxu ba ca bureau ba ca ba ca robinet ba mu roof ca mu roof ca mu roof ca chargeur bi xam nga ne kii juum na ci lim def waaye boo xalaa boo xoo boo ko xoolee da xam ne moom euh, xel mi ci boppam nekku fi waaye moom lam doon nam dëgg-dëgg mooy dem kii ñii li leen yàlla mooñaale ci bëgg ko moo tax ñu jóg di ko jaamu ji bañ jógee di ko jaamu ji rek ñu jël askanale uluhiya googu ñu askanale ko keneen leneen lañu ko askale itam yàlla dafa dafa dogal ne amul lenn lu ñu mën a jaamu ci àdduna muy exister di taxaw di taxaw ngir xiir maanaam ngir fiir gi yàlla fiir ci uluhiyatoom moo di ne loola ci yàlla subhaanahu wa taala ci boppam moom mooy namm loola loola existé pour nit sax man mën a sujjóot jëm ca loola wala mu mën koo jaamu wala yu mel noonu loola faawu yàlla nangu nangu googu nag loolu ñu tuddee tëjalli yàlla moom moo cay feeñ ngir nit ki ci boppam mën a jaamu loola tëjalli nag kenn du tuddee ne yàlla ci boppam moom mooy ñëw dugg mbir mooma déedéet yàlla subhaanahu wa taala faaw mu sànni ci leer ngir nit ki mën ngir nit mën a jublu loola di ko jaamu su du woon loolu moom du mën a jaamu loola waaye tamit loola ci boppam moo dul nekk di ko fa xaar loola ci boppam moom mooy idmixlaal moom mooy moom mooy far ca boppam soo su jootelee leneen lu dul yàlla su ci yàlla jàpp loola ci boppam du nangoo taxaw du nangoo existeeti maanaam du dul am yàlla moo dul nangu ñu jaamul leneen lu dul moom moo tax mu tuddee ko almaabudul xaq euh, loola nag mi ngi ko jëlee ci laaya ji wax ne walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi tawan wa karahan yàlla ne euh, man rek lees di sujjootal wala lay torox lool ñi nekk ci asamaan ak suuf man lay sujjootal tawan ñu def ko ci seen teeyug bakkan mooy jullit yi julit ñepp ñi ngi jaamu yalla tawan karhan moy ñeneen ñi nga xam duñ julit ñi ngi sujootal yalla karhan te fekk dañ leen forcer dañ leen forcer moy dañ leen forcer ñu dem sujjootali leneen lu yalla mom moom faawu ñu sujoot faawu ñu toroxlu ben ñu toroxlu yalla te moy tawaan wala ñu toroxlu leneen lu yalla batay e, eh, mo ma nga aju ca la len yalla xirtal ngir bëgg gi nekk ci ñoom ci bëgg guñ bëgg uluhiya bëgg guñ bëgg martaba yàlla subhaanahu wa taala bëgg guñ bëgg wàllu yàlla tax na ñu dem eh, sujjootal xërëm yooya nga xam ne moom lañu sujjootal seen sujjoot booba nag eh, eh, ni ñu sujjootalee leneen lu dul yàlla nag lépp lu leen di fekk ci ay ci ay ci ay duma ca loola la leen fekk loola la leen cay fekkee maanaam ma leen ciy fekk ca nañu jële lañu waroon askanale yàlla ñu askanale ko keneen su ko defee ci lay demee safara ci leen yàlla duma e, ci lañ amee bépp mbugal waaye lañuy sujjootal lañu lañuy kii loola yàlla subhaanahu wa taala moo nangu loola moo ca jàpp pour ñu mën ko sujootal ngir uluhiya gi nga xam ne moom moo nekk moom moo nekk namm uluhiya gi nekk ci ñoom bëgg yàlla gi nekk ci ñoom ñoom foofa la mën a feeñee foofa la man a feeñe kon ñoom seen jug di dem yàlla lañuy ñuy doon sujootal waaye nag ña nga juum nag dem eh, neey eh, askane looloola keneen ku dul yàlla subhanahu wa waaye lañ ko askanale nag yàlla subhanahu wa taala kese moo mën a nangu loola mën a exister mën a am pour kërëxan gi am nga def ko foo xam ne fu yàlla bëggul la waaye yàlla moom dañ la xiirtal nga sujootal ko moom sujootal googu da nga ko koy defal moom ci sa teewi bakkan wala moom mu sant la nga sujootal ko ci kanamu keneen muy kërëxan gi Eh, léegi nag laaj bi samp mooy eh, ñu ngi koy laaj borom téere bi ak képp ku d'accord ci ku d'accord ak moom mooy walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi tawan wa karhan loolu lan lay tekki maanaam karhan baatub karhan yàlla daf ne ñëpp ñu nekk ci asamaan ak suuf dañuy sujootal danañ sujootal seen borom wala danañ ko toroxlul eh, moo xam ñu def ko tawan ci seen teewi bakkan aw karhan wala ñu def ko ci ne dañ leen a forcé waaye munta jàkk moom faw saa su nekk dangay ngay toroxlul sa borom da ngay toroxlul yàlla te yàlla kese kese kese ngay toroxlul nag mënoo toroxlul keneen eh, léegi nan ngay toroxlu nan la yéeféer bi di toroxlulee yàlla ci forcé ci mooy mu toroxlul keneen ku dul yàlla maanaam mu sujjootal ab xërëm wala mu jotal ci lool rek la mëna su jotale yalla manam masalan suñ newon euh ñoom am ñu wax ne amna ñu wax ne forcé gi moy ñu ti ñu xex ak ñom ci jasi ba duggal leen ci diine ji waye lool timit danaka dootul nek forcé suñ leen xasse ba ba ba ci diine ji ba ñu ñew toll boba forcé amatul suñuy torox lool yalla kenn forcé wu leen pour ñu torox lool yalla ak yu mel non beneen bi même su fekkee nangu nañ loolu dana am ñeneen ñoo xam ne ba tey kenn forcé gu leen maanaam masalan Trump Trump fi mu toll nii nan lay sujjootalee yàlla ci forcé maanaam kan moo ko ñemee tiimalee jaasi pour mu sujjootal yàlla wala mu toroxlul ko ci forcé du ko def lu dul lu dul lan lu dul moom sujjootal gi muy sujjootal leneen lu dul yàlla maam yàlla ci boppam moom moo ko forcé mu def loolu mu ko forcé mu toroxlul dara yàlla feeñ ca dara jooju ngir loola mën a nekk ngir toroxlul ga loola sax mën a taxaw bañ koy toroxlul moom te loola sax jaam bi ci boppam li nekk ci moom ci bëgg yàlla te xëmul yoon wi loolu moo ko yóbbu sax ci muy toroxlul dara la muy toroxlul nag bu fekkee ne dañ ko caa xëcc ci kër xan du ci am tiyaaba ay duma ko cay fekk ndax moom indiwu fa boppam waaye dañ ko fa indi loola moom la doon firi fii mu ne lool moo nekk ci laaya ji wax ne walillahi yasjudu man fi samawaati wal ardi tawan wa karahan wa zilaaluhum bil guduwi wal asal fa kullu aabidin wax jaa ngi door a teer maanaam lam doon wax ci maraati bi yépp nag mu ñëw ci martaba euh, yéeféer yi mu ne ñoom yàlla daf leen di forcé ñu sujootal ñu sujootal xërëm walla ñu sujootal dara loola mooy nekk sujootal bi ñuy sujootal yàlla forcé gañ leen ci forcé nag moo tax duñ ci am dara mu ne nag léegi nag kon boo gisee képp ku sujootal yàlla képp ku sujootal euh, wala mu jaamu leneen lu dul yàlla ci zahir bi moom loola la jaamu waaye ci baatin dëgg-dëgg yàlla moo ko xëcc force ko mu def loolu mu sujjootal ko moom moom yàlla waaye ci kanamu leneen ci kanam leneen yàlla nag moom mooy tëjal lii ca loola ngir sujjoot ba mën a am ndax su fekkoon ne loola amut loola su fekkoon ne tëjal lii yàlla amul ca loola loola ci boppam dafay dammatoo wala dafay dafay dafay moxoñoo su fekkee dañ ko sujjootal ndax yàlla dafa fiir ci martaba uluhiyaam moo tax yàlla wax ne innani ana allahu laa ilaha illa ana maanaam man kese maay ki ñu war a jaamu ci dëgg amul keneen ku ñu war a jaamu ci dëgg amul keneen war a jaamu dëgg kon leneen lu ñu jaamu yàlla moo sujjootal ña ñay jaamu loolu moo leen sujjootloo kër xan par force ca kanamu loola ba noppi nag war leen a duma ndax lan ndax lañu sujjootal defuñu ko kër defuñu ko tawan waaye kërhan lañ ko def du tax ñu amee ca dara lii moo doon wax ji te wax ji yépp mu ngi ko tënk ci laaya jooju walillahi yasjudu man fi samawaati wal ardi tawan wa kërhan wa e, la tax nit ki sax jóg di sujjoot bëgg yàlla moo tax tax xam na ne am na lu mu war a jaamu am na lu mu war a toroxal torox torox lool Eh, lam war a toroxlul nag moom mën na koo xam def ko ci teeyu kanam mën na ko ñàkk xam léegi ñàkk xam nga nag ak eh, ñàkk koo def nag mooy waral yàlla force la nga defee ko ci kanamu leneen su ko defee ay duma di la ca fekk eh, lii nag moom lay borom téere bi di jël wax ne ah waaw dafa wax ne maanaam jaamu moom lu waay jaamu baax na maanaam boo fekkoon kuy jaamu ab xërëm nii bu ne ko li ngay def baaxut Eh, ak nangam ak nangam ndax ñoom eh, dégg nga maam eh, la ñuy jaamu yàlla la yow li ngay jaamu yàlla la ñoom li ñuy jaamu yàlla la nangam nangam tàmbalee ko nag fii ci ci fi mujj fi nga xam ne fi la wax ji di teere lañ jotoon a wax yépp daanaka xamo xamoo ci dara yow yow jéemoo ko lijjanti jéemoo ko liir xamoo yan martabatu mahabba balañ doon wax ak yu mel noonu dangay ngay tëb rek daan ne fa kullu aabidin aw saajidin waaw ku jaamu xar xërëm wala nga wala nga sujjootal xërëm eh, ci zaahir eh, yàlla nga sujjoot lool daanaka xel da ko nanguut ko nanguut xam na lu ñuy lu ñuy lu ñuy gën a xuus ci kii bi daanaka day gën a guddi eh, xam naa foofu lañuy yemale wax ji xëy na beneen yoon ñu ñu dikkaat ci beneen wala suba sax ñu wàccewaat yeneen i kii yoo xam ne ci biir téere boobu la jóge yii ñu kii nag dañ ko dañ koo jël rek dañ koo jël jël koo xam ne daanaka kenn kenn waaju ko dara dañu dañoo tombe luñ tombe rek ñu ñu ñu marqué loolu wax ca waaye du wax ju ñu ju ñu ju ñu waajoon lool lool lool. ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah xam naa ne daal waa ji moom daf doon xool ci yeneen i téere yoo xam ne dafay dafay ŋàññi tasawuf lañ ca wax ndax eh, maanaam yim wax yépp man gis naa ko ci yeneen téere yoo xam ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko njëkk a bind. Eh, te ñooñu moom dafay daf bokk na ci masaadir yi mu sukkandiku ci biir téereem bi eh, kon ma jàpp ne xëy na la nekk foofa rek la jël indi fii. waaye du ay waxam yoo xam ne daanaka moom moo ko moom moo ko gëstul boppam ak yu mel noonu ay waxi jàmbur la yum dajale rek lool nak bokku na ci li waralon Serigne Cheikh Tidiane gay tuddé won di di am yum koy tuddé ci biir téré bi tuddé ko al almuwaqiu alayhi manam ki signé ci téré bi manam du ki gëstu téré bi waye mom dafa dajale ay ki daj ci signé rek loolu mom moy li ma sétlu ci mbir mi deug deug ndax bo liré hadhihi hiya sufiyya ak al alfikru sufi ak masrau at tasawuf ak attijaaniya ala daw il kitaabi wa sunna ak yu mel noonu daanaka jaratul ngay liir téere bi ndax la foofa mooy li fii rek asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa nag am na loo xam ne dama koy dama koy dama koy wàccee xëy na su subaa ñu ñu door cee wax diiru fii nag ba suba nag nit ñi liir ko bàyyi ko xel mooy li mu tuddee woon risalatu al daairatul fadliya wala daairatul fadli ci taqdisul ashxaas léegi su ko defee ñu indi risaala ba ci boppam ba mat sëkk ci jawaahirul maani ñu méngale lim bëgg a wax ci risaala bi ne cheikh loolu la wax ak waxi cheikh ji dëgg-dëgg su ko defee liirkat yi ñu ñu liir ko fii ak suba ñu génne ci ay xalaat incha allah